ñi ngi ci tëjtal jotaay bi kàddu gu mujj gi moo ci des waaye ñi leen wax ne lii ñu tiim nii ay CV la yoo xam ne yuy màndargaal yi ñu doon wax la nga xam ne dañoo amoon ku ñu waajaloon ngir mu présenté CV yi malheureusement temps bi permettre ñu ko waaye ñi xam ne ci anam yu yu wuute ñi ngi fi soxna si doon toogoon fii léegi ci wàllu finance ci la ci la yëngu am fi ñoo xam ne ci wàllu informatique ci lañ yëngu am na ci wàllu ñoo xam ne ci wàllu bâtiment ci lañ yëngu am na ci CV boo xam ne ci wàllu eh, électrique ci lay yëngu kon ay ay ay wet yu wuute wet yu wuute ñi génnoon ci daara ji bi ñu demee ca xàll wañ nekk it am nañ fa eh, seeni ndam kon di wane ne daal nit mën naa noppi ci daara ji ba noppi bu defee leneen da cay man ña nga xam ne ñoo noppi doon ci daara ji ba noppi am daara loolu lu mat a bàyyi xel kon du ñu bëgg guddal ndax waxtu julli wi jot na dañuy jox sëriñ Moustapha Mbacke moom Cheikh Amadou Bachir kàddu gi incha allah taala bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu turu Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Amadou Fadil ci moom lañu xëyee wax ko ne ko ñu ngi jëm si fii ngir daje mii ma ànd ak sëriñ Fàllilu ak bokk yu fekk wax ne bu ñu ñëwee kàddu yi ñu koy yëkkati ci turam lépp sant yàlla lay doon yu mu tibbee ci xolom jëmee ko ci Cheikh mu taxa ak sëriñ Xaadim Njaay bi nga xam ne moo waral jotaay bi bu dee sëriñ boobu moom duñ ci wax lu bari ndax wax ci sa bopp yombul waaye li waral ndaje mi sëriñ bi wax ne ñu leeral leeralal leen ne moom na sant na yàlla bu baax a baax tey jaarale ak santam ci Cheikh Mouhamadul Fadilu ndax dafa wax ne moom bokk na ci li ko sëriñ Fadilu mujj dénk bi mu ko gisee na nga fonk alxuraan yitteem yëpp mu jëmee ko ci alxuraan ak ñooñ alxuraan kon bu demee ba njabootam di taxawee alxuraan ba mën ci yaama résultat tool yi kon moom day mel ne loolee ko sëriñ bi dénkoon mu ngi ci sant yàlla bu baax a baax kon sëriñ Xaadim sëriñ Bachir wax na ne taxawaay bi nga taxaw ci sëriñ Abo ak ci ay moromam ndax du moom dong ay rakkam jaar nañ fi te lii si Abo def def nañu ko kon mu ne mu ngi lay sant cant koo xam ne am na mu tàmbalee waaye amu fu mu yem du cant goo xam ne day cantu diggante nit akub sëriñam wala ta sëriñ akub taalibam déedéet day cant goo xam ne yow yaa ko jëfal lislaam mu dala ko sant mu wax ne mi ngi lay ñaanal suñu borom fépp foo bëgg mu egg fa yàlla fa egg yàlla na musal ci ndog ba lii sa yéen yëpp nga motali ko ci barke sëriñ Tuubaa wax ne cant gii nag nga jaarale sëriñ Abo moom sëriñ Muntaxa lay daloo cantu gi tey ndax sëriñ Muntaxa yëg-yëg bi mu am ne moom moo yëlif yoon bi daf koo jëfandikoo ci moom di kilifaam ci wet yépp ndax moo fi nekkal sëriñ Touba nekkal fi sëriñ Bachir kon mooy kilifaam ci wet yépp bu xëyee yónnee ci moom ndaw nekk abul baraka damaa bëgg mu dem jiite ji Ndakaaru nga xam ne tàggu ko daf koo jël sañ-sañam ci moom nee na loolu cant gu loolu noonu mënu koo fésal xanaa lu dul ñaanal ko rek suñu borom mu may ko fan wu gudd mottali ko ay naan moom Seex mun Muntaxa di dénk sëriñ boobu mu gën a góorgóorlu rek xam ne ñi fi nekk bari nañu kon bu xelum sëriñ bi demee ci moom ba mu tànn ko indi ko fii loolu ak cant yàlla la waaye ab soññeeku bu wér a wér la doon ci mbooleem ñi nga xam ne ñooy yëngu ci alxuraan ndax taw feex la rek du suñ borom baaxee kon mu wax ne mi ngi sant sëriñ Mountakha di ko ñaanal waaye di am mbégte nag ci ñooñ alxuraan ñëpp ndax li ñu waroon wax ñu njëkk wax wax nañu lenn li soxna si mott li ci des mooy alxuraan dafa toll foo xam ne. dafa soxlawoo ñu ko taxaw te sëriñ mu taxaw ku ne xam na taxawaayam ci jàng itteem yëpp naka jekk ci la ko jëme woon rawatina bi mu ñëwee doon sëriñ Tuubaa li mu njëkk a taxawal mooy ab jàngukaay te waxul rek yam ci naka jekk at mu ne mi ngi dajale borom xam-xam yi di leen defal teraanga yoo xam ne kenn mosu koo gis te loolu lépp soññee ko ndaw ñi ndax day wax ne ñëpp dañoo war a jàngi ngir ku xamul moom doo mën a taxawal dara te bi itteem jëpp ak liggéeyam bi ci xam rek la ko taxawale kon muy soññiwaat jullit yëpp di soññ murit yëpp ñu gën a taxawaat gën a joxe ndaw yi ñu dem jàngi te xam ni ko soxna si waxe léegi rek jàng moom day ibbi aw yoon waaye du tardel kenn te ku ko nat nga am sa ñaari doom kii nga jël ko yóbbu ca daara ja mu am taxaw ya war a am kee nga jël ko yóbbu ko faneen fuñ mën di jëm ki demoon ci daara ji dana ko dimbale te loolee mu nekkoon di ci yëngu bu jógee ca daara ja bu ci ñëwee mën na ko caa fekk ba ko ca kon jàng alxuraan tardelu kenn sëriñ bi nee na mi ngi soññi boppam di soñ ñëpp ñu gën a yóbbu done gone yi jànguloo leen alxuraan xamal leen seen diine ndax ñu bari danañ yóbbu seen gone mu jàng alxuraan tari kaamil bi rek ñu daal di ko fay jëlee déedéet nañ leen bàyyi ñu jàngale seen diine day tax rek yoon bi gën a leer ndax jàng diine ci la bokk kon sëriñ mi ngi soñ ñëpp sëriñ xaadim sëriñ bi mi ngi lay ñaanal di wax ci turu rabita bi di leen gën a soññ ñu gën a boole seen bopp gën a taxaw ni ko sëriñ bi waxee gën a takku te xam ne noonu lislaam yi tey la gën a taxaw ngir songu alxuraan waaye li feek ñi ngi boole seen bopp lu songu yi bari bari dara du sotti ndax suñu borom ci boppam moo ko téyel boppam kon ñi nga xam ne ñoo ci nekk nag nañu takk seen fit bañ a gës bañ a gestu dox rek te xam ne lu yàgg yàgg yàgg ñoom ñoo nekk ci dëgg ku nekk ci dëgg nag waroo ragal dara